dikkoon naa la sëy waaye mbir mi nii la demee nii la demee. aduna bi nu mu yaatoo. aliyee liyee liyaayee. ku fi bu njëkkoon. aduna. seen na Njaay sant Ndiir Lo.

xam nga ni bu ma ko jotoon téléphone dina yóndee lu ëpp lii. del doylu. doylu doylu laa déggam yow Mimi moom dafa war a xam ne fii au Sénégal les temps ont changé ndax la nga daan am à 5000 francs boo deful 10 000 doo ko am. ma ne yow xam nga ci dara xam nga ni 20 000 francs yëngalu ma yëngalul sax sama njalax gis nga nag man xale bu tuuti laa waaw. té ñi ko yor ñi ngi fi ci réew mi di joxé nak loolu ak loolu. yow li nga ëpp na dé yow ya gëna tay ni suñu jëkkal mi ngi bitim réew di wut. té bës bu ñëwé dina neex ci yow neex ci man. hãn mané waxal pour yow ndax yow jot ngaa xamanteeg mom man nak ci cassette vidéo la ma gissé bëgg ma daal di may tak té gis nga amuru vidéo daf koy jar lambi fenen ii yow sa lamagne bi ah ma ne ma fii bu baax a baax mimi yow jot ngaa neex nit moom man nag dara boobu ba léegi si intérêt la nag ma làmbi feneen ndax bës bu ñëwee làmb daj rek muy foofu ih yow bi yow kaay yow yow sax au moins yaa ngi fi ma xam naa bu du woon yow moom <laughs> dina gën a metti yow kaay waaw am lii vingt xam nga ni lii bibi mii sax matu ko njëgu boisson yow bibi toogal fii dégg nga ma dem uti lu naan. mu jéem fii nekk dara newu fi est-ce que lii moom fii rek la am. ma fenn ca Cerno la jëm ndax man kenn duma fayeku. ay ay da moy ko ma buddi borom buddi eh mimi dépense bu boy toyul. dañ koy mottali waaw ayda ma ne dimbali ma man yow mom togal fofu rek mul nga dem Sénégal sa jabar Aïda nu mu nekkee Sénégal du dëgg du yoon ça dépend rek toy fay bor wala det mu jéem xam nga ni mos man faykati bor la seetal ma ñaata la la amel. xam nga ko. xam na ko yow kañ nga prix fixe. 1500 yi mal abal dem nga dem gént. ak 750 yi nga dëkkee tay ci suba. man ak 750 ndékki. déglu ma bu ma rabar rabay gëno ma xam limay may liggéey loo jël fi dama koy bind. mané bu dee da nga bëgg lo dajal pour yóbbu dëkk ba. fi ama bo fi damay wax lo neex rek suma 2750 ma ko fay. dina leer tay may ma jaay sama client malikum salam am jaay ma bu mo bu ma doon jaay temps bilaay xale nu mu bëggee bon bon. ana sa yaay sa yaay mu ngi fi. nga nuyul ma ko. waaw. yow gaawal man dama ne la 2750 nga ma yoreel. ma ne 2000 francs 2000 laay fay. dama ne la 2750 nga ma yoreel ma ne ma loolu la ñuy seet 2000 laay fay. baax na fii doo fi gisate joxoon ma sama 2750 ma ne dina leer. ah bon fekkee loolu dajale yóbbu fële ca réew ma ngay wër tey dina leer. may ma ma sama client grand loo bëggoon. Eh, benn paquet cigarette. Eh, ban cigarette. bële. ak lan. ak eh, almet. benn almet. sama 2750 moom danga ma ko fay. wóor laa la wax. sama 2750 donc yow jox ma sama xaalis. dimbali ma man jox ma sama 2750. moom laa lay fay. baax na egg wuñu foofu sama 2750 moom dina ma ko fay. dama ne laa fi nekkal. fii kenn du fi tox. waaw Aïda tox fay. mais Aïda yow yaa autoritaire ñëw sama boutique di fi ma dama la boo bëggee commande dangay dem sa kër fi sama boutique la dégg ma la wax. fi sama boutique la. mujjé yow may fo rek nga def ko deug ay yow tamit nak sama càmmiñ yang may ruslo garaawul. ah yow man rusna kat nak lan ngay naan. ah xana bu xew ci jamono ji. jox ko maa la jëppi. maa la fi taxato de. yow gawal ngay yok ini su 2750 la soxla la bon almette ben, Un paquet cigarette ak almet ak euh, boisson 750 la. oui 750. man maa ko def waa sama càmmiñ. Mhm. loo wax ceeb bi. da nga bëgg ceeb. waa. <laughs> waaw saaku ceeb bi moom ah biteelu gaz bee koy togg de jox ko gaz <laughs> grosse suukar bi nag jox ko <laughs> nii de la góor day gaaw mbaam yi loxus nii rekk la loxo sa poche làmb daj kese nag waa nii la góor day am colonne vertébrale nii rek la mu ñaata yu gaawal kuyi ko dafa yàqamti gros suukar 3000 francs la Euh, gaz bi 1500 la euh, ceeb 10 000 francs euh, cigarette 500 boisson bi 225 allumette 25 francs en tout 15 250. 15 250 waaw ouais. 10 000 15 000. après on va te wéccet merci. ay yow ku la bàyyi. les client vous bu meloon yow moom mon boutique bi dina dem kanam. ay yow jërëjëf ci de wute eh, sama xaalis. sa ban xaalis. ma jox ma sama xaalis Thierno. dama ne la ay da jëlee sëñ nga dem waay. jëndatuma. ma naan. jëndatuma. bàcc naan laa wax. sama xaalis. yàlla ko nga yóbbu ko laa la wax nga naan sama xaalis. mu tax ma may sama weccit. ma ne tax ma may la riir. may riir lan. boo bañee rek ma may la riir jox ma sama xaalis. kon riir nga may may. bon <laughs> da bëgg ma wax. yow bu ma waxul da nga wax yow. doomu chef de quartier bi <laughs> ñëwal ko biiral. ku la wax dimbali ma fi la amul importance jox ma rek ma dem Dakar c'est pas la yow nga xam <laughs> ay fi aduna la dëkk bi lañu dëkk na naa to ci dara sax boisson bi nak mom, bu la neexee nana. ay rek na yem ci man ak yow bu ko kenn xam Bay ma man war ci caala bu ñu xamé dañ may daax ma dem Man ya xam. yaa xam kooku moom du sama problème <laughs> man sama journée neex na di <laughs> lii moom. du maa bañ xanaa amoo papa. sam papa nekk fi. waa papaam nekk. waa papaam nekk fi. waa papaam nekk. waa papaam nekk. waa papaam nekk. waa papaam nekk. waa papaam nekk. waa papaam nekk. waa papaam. waa papaam nekk. waa papaam nekk. waa papaam nekk. waa papaam nekk. ma xool ba mbool. am. waa soogo mbool. mu yaay yooyu. balaa maa dee rek nga kaalawu la sa sijaada rek fas yéene julli xool ko nag tey rekk laa waaru man mujjeen man de munoo maa booleeg yàlla sëgg si bu julli rekk ñëpp ko man lii moom ñëpp ko man jarul tiitaroo yow bi bi kaay fii man ngeen yëf seytaane moom ma ci asalaamaaleykum ah waa kii du sama ajaa bi ndeysaan moom di nag ndeysaan dafa julli ci rek yow Aida na nga def. maa ngi fi rek di la namm rek nag. Iya. Hmm. ah man kay maa la raw man mi la seet si. waaw na nga def nag. waay sant yàlla alhamdulilah. waaw yow doxee nga naaj di. ah gis nga ko de xam rek da ngay waaru de. ça va. ça va sant yàlla rek. baa gëju leen dégg seen jëkkër ji. moo tax de. ndaw si di julli julli yu métti. dafa gëj a woote di. ah loolu kay not yoon la bàyyi ko mu julli te ñaan te xam ni góor ñi léegi ku xass bu dëddu rek da ngay tayale rotsi mané ñu xam ah. man de yoy téyewu ma fi nek diko nekk di ko xalaat ak di ko toppatoo ah. gérew ma yooyu di ko ñaanal tal naa yenen yaay ah wa kii sama sama soppe mom nak la day san ba légui nakar gi rek gi deug jigatu tu mom hmm. wayna wax nga deug de gor mom ci bopam da war wara am fulla kaay jàppale ma ma wéeri sama kii bi sama yëre yi. ah da nga fóotoon dama doon fóot di nu may def. ah baax na ñu def fóot kat sax mënoo ko am. dëgg fii nii rek la am kenn dundul. bi bi toogal ma ñëw man kaay sama wéttal. lan la dama nam sam pap eh sa pap ya ko tax dem dafa outi bés bu amé rek dina delu ci si hmm? musuma ko gis day man chaque fois ma envoyé ko say photo nee na sax yow xalé bu rafet nga xara ma may la cent fa nga dem jëndi mo dee ah, ba danga da nga nekk ci nawet. moo tax it loo weer balaa moo wow. ah de moom dëgg la. waaye nag nawet moom bu baax la. waaye Aïda. naam yow dégg nga li ñuy ngun ci dëkk bi. fen ma ma dégg. Ah, yow tam fen man dëgg rek moo nekk sama làmmiñ. waaw waxal nag nouvelle. xanaa Roqeya. Roqeya lan. yow tey ngaa tey te xam ni may Al Jazeera. waaw waxal ma dégg lu dal Roqeya. Roqeya la jëkkër gi ñëw jël fekkul ci moom dara. léegi nag ah, léegi nag nen da koy fase ah fase ah kii daal moo ñàkk kersa waroon na kaa sëkk ak man mu xam fekk ci moom dara rek mu fase ko ah ndax da sañ ko wax roqee moo ko def góor ñi ñoom foog na ni teen bi ñoom rek a ciy ko def moom ah, loolu ñàkk fayda doon ah, eh, man la <laughs> waaye fii tey portable bi bu daanoo fii kii de xam naa député Fall la billaahi kii moom a lakkal ah. waa doo ko wuyu nag. wuyu kii su ma ko wuyoo day am lu ko neex. léegi ba ci. ah ba ci lan tey ñoo wax suñu waxu tànn béer bi da nga xam ne que sabar bi man yow laa koy tuddee. nga ni lan xalaas. maa la wax loolu. ma ne bàkk nga njaag. su boobaa nga xam ne man nga ko sekkal ma ne wax baaxul du wax sax. dama ne man yaay sama léppi fépp di sama lu nay fu ne. Ah, loolu xam naa ko. yaay saf ñépp ma ne nañ dem. gis nga li du fi wawee léegi nañ dem wax suñu mbirum sawar ge nañ dem dama ni wax feñ <laughs> ay way ci boba lay lay la la bayo yow na nga def yow kay lay laaj ça va ça va ça va ano gaañi ñoo legi, legi. léegi waay ah, Sénégal nak. way ça se passe bien à part comme ni nga ko li ñuul suma aduna bu du lolo tout va bien tout va bien wow. gis nga Aïda. oui oui je l'ai vu. gis nga je l'ai vu gis naa sama jabar maa ngi koy topp xamul sax ne man jëkkëram laa d'ailleurs on s'est vu waxtaan nañu ba ñu ngi xalaat sax ay yeneen mbir. mais Modou. bu fàttali naa sa garab bi de. non non du ma ko fàtte du ma ko fàtte. waaw demee woo nag demee woo. demee woo non il faut que je te téléphone après demain hein, pour te rendre compte ouais ouais ok waaw nga nuyul ma gaañ ñi ah oui comme ni ma la ko waxee rek nuyul ma gaañ ñi Ale. Kamu juga? Hmm? Pardon mau gis lah. Gis? Ouais. Pour lan? Nga balmo Na nga def? Ça va? Eh, dama bëggoon xam sa tour. Sama tour? Ouais. Sama tour dafay jaay? loo ma ko jaayee rek jaral na ma. yow man dama am jëkkër. da am jëkkër. waaw. anamu. nekk fi. dafa tukki. waaw. bitim réew. waaw. moom sa jëkkër mu ngi bitim réew di def lu ko neex kon bu mu la teree def li la neex yow. man maa ngi dem. ah pardon am xaaral. waa léegi nag. dama bëggoon ñu ànd doxantu. ah yow dafa teel. sama jigen. bànneex du teel. waaw Aïda yow yaa mel nii. xalaas. yow de da ngay gëj. dégg ko nag moom. ah baax na maa wax lii de. ah yow de sa jëkkër ji nekk France mom bu la gisoon. ah. wallaahi dina dagg paas ñëw seet si la bala mu laa ñàkk. sama càmmiñ sama càmmiñ na nga def. ça va soo bëggee ñu ànd day foog mu yóbbaale sama xarit di xalaas. ah maa ngi nii man may xalaas ku làng ku ne ba ma amuloo làng. man moom moo ma neex moo ma sax keneen ku ko neex rek neex na ma. Ah, kon baax sama càmmiñ de moo ma jox ah, dama ne lii bettu ma kii bi ma ko xoolee kaw ba suuf xam ne ku am réseau la <laughs> maa la wax lii. ay waay déggal man waxuma la dara sax waaye ak naaj bu tàng bii. glace vanille rek moo ma jagal. nan dem amul benn wérén. xalaas daal. tukki la tukki la xam nga di ko naa la mbir mi nii la demee nii la कैसे Bunyokon Senegal, Sapton and Guy, Sapton in Boyfan Papa Joe, Anna Jojo, Jojo Zena. xanaa doo ma indi ba fii ba pare di may wax sama waxu jëkkër n'est-ce yaakaar ni am naa yeneen science ñu war a développe mais dama bëgg nga wax ci man tuuti moo wax lu tuuti si sama jëkkër. waaw. Euh, dafa ah jëkkër laa dégg sa jëkkëram kay maa la ci mën a wax tuuti. defal ni jëkkëram daal li mën a mën a xamal. Mhm. ñuul na ñaaw na bët yi sew na. xalaas

wër aduna mhm. dox ba une étoile étoile bi ma doon seet gis ko jàpp ok ah <laughs> tu sais quoi hein? c'est un grand plaisir pour moi mhm. d'avoir fait ta connaissance <laughs> mais c'est vrai c'est vrai mhm. je vais en connaître beaucoup bah oui euh, pas de problème de toute façon on a tout notre temps ouais. ndeysaan ak ndeysaan rek fàtt na jëkkër ji rek léegi ndeysaan. waaw am jëkkër. dafa am jëkkër kay xam nga rek jëkkëru kaset vidéo yi. waaye jëkkër jëkkër la rek. Eh, dama ni jëkkër ci kër ga. chéri. waaw. Ah, rek. <laughs> xam na kañ mës na fee ñëw benn yoon pay fi nit ñi lekk ba su ba màndi xam naa ne borom xaalis la. waaye xanaa dëgg. ba ci la. waaw xool leen. c'est quoi? Je te suivrai partout. Quand tu veux, où tu veux. Je n'y vois

jadi nirok pakai bunyudah dem bàyyi tey moo tax nga toog ñi rek di ma xool gis nga ko de mu ne fanaan siwul moo xam fu mu dem de guddi gi yëpp am jëkkër di dox nii fii laa ko musee gis waaw bu ñëwee dina ma fu mu demoon xam nga yenn ni mu ko mënee foo nekkoon béeg yow loolu bu ko toppatoo dégg nga hmm. fii de lu waay rendi rek ci ay loxom lay naaj yow lu la metti teguma la ko nga niroo géej gu ñu si naaj di xaar la nga xam ni kenn xamul kañ lay ñëw ah, lu la tere ñaan sa baat nag kon nga am lu la neex ma ne fii laa naan doj dojaaral di lekk ni yow ci mandat yu ñu fi daaj ah bon yow daal mandat moo la fi daaj ma ne fi daaj moo la fi daaj hmm? man may lam boor boo ma laalee dagg waaw ah, militaire ¿eh? ¡Eh! ah ça va na nga def ça va bien. ça va bien alhamdulilah dama lay gérer rek. ah la la la la la ça va. sànq ba léegi ñu ngi lay xaar. ah oui ah oui. parce que xalaat muy muy may wax naan ma est-ce que yow di nga ñëw. yow kat da nga bëgg sa tur bi sax. man waxuma dama la wax daaneelu ma sax nga agsi. <laughs> lenn la moom danaa la ko wax. dëgg la su ma woowoon alaaxira sax ma fekk. waaye sama man loolu rek la. ah chérie. waaw loolu wax si man rek. ah. pour yow rek la en exclusivité nag. non defal ndànk da ngay simili jox ma mu téye mu xool la bu baax. ah déedéet bàyyi nii rek xool kii nag moom bàyyi ko ah waay la ah dëgg ah, dem ah, euh. ñu dem ci biir. Eh, nag moom. sama waay moo fi ne lépp dafa ko jox dafa ma ko jox sama disposition te nag sa waay ji rek moo tax rek nag fi mu ne. Je def man lu amul yow vous avez vous avez pris toute la boîte. pour moi seul suis wax lolu <laughs> dama la ak là, ci biir. ta je dafa ba mm, mm. mu wax surprise lañu bëggoon def xal neena <laughs> dugg sama yaram dafa on va doon set. oui maa ngi doon set xalaat. ma nga nee taxaw. mais xalaat mais gars yi mais xalaat. xalaat bi ñëw waaw. xalaat bi ñëw. ah bon mais sama gars yaa ngi ah bon ah waaw mais la vie est belle. Hein? Hmm? Ah, merci. Merci. Madame. Merci. À votre service. Euh, puis. Tu sais quoi Je t'aime. mais qu'est-ce qu'il y a, hein écho séeku lan la. man daal. Hmm. saa yëpp sama yaram neexul. sa yaram neexul mais man naa muy fatigue ma. mais damay miir. quoi. en plus damay am envie wàcc ah. da ngay miir am envie wàcc. non non Aïda non. waa léegi nag. ah léegi nag léegi nag. sa jëkkër nag. sama jëkkër nekku fi et puis xaw ma kañ lay ñëw ba pare moom temps yëpp woote ne qu'est-ce que tu veux. après. dama koy yàq. sa jëkkër tànk fasewu la waloo biir gannaawam t'as compris. dama koy yàq ma ni. yàq waaw. yàq yàq non Aïda xam nga li ci yàq bii mais qu'est-ce ci tu lan nga bëgg mais su ma ko yàq lu may def da nga ñu may marié ci koñ bi fii du ma fi jarati dara su ma génnee du ma ko def dama koy yàq balaa kenn di ko yëg loolu lay def raison de plus doo def li nga def li ma def du man kese mag yow ñoo ko bokk def waaw. Ah. am na dama koy yàq dama koy dëndi lan nga bëgg. Aïda bu ma tuddal ci faat bakkan xam nga li ci rey xam nga li ci rey nga li ci rey rey. mais su ma amoon beneen solution xam nga dama ko def mais lan nga bëgg ma def lan. solution boobu rek laa gis loolu laay def dama koy dindi. Рай! Rain it! Rain it! No! No! No! No! sa waay man duma kàkkatar ko Wa wuyuma ci li lay wax waxal yow fan nga bëgg dem ci Europe. man Italie rek laa ah, na de. waaw. te waxee ngeen ne Italie te Italie actuellement nekk loo xam mais yéen su ngeen demee sax Italie yéen ah yéen mooy des ci dëkk bi. wuyu ma ci li ma lay wax. nga 3 millions. surtout tout saa yi. 3 millions mais dafa bëri. man daal xam nga lu ma yor en tout pour tout 2 millions. 2 millions nag soo ko yoree war nga ko mën a liggéey fii ci dëkk bi. eh dama yore njaboot. saa yoo xoolal man nag du ma waaye. voilà xam nga pexe. mën nga ko la jënd. Italie waaw 3 millions la fay demee. mais lu ci mënti am daal. waaw ah waaw 2 millions moom de toute façon daal woo ma après sama sabar bi après dinaa la ci wax pexe. waaw kon benn problème. ñu def noonu. jërëjëf. Mekay. Kay. Wayo lan la? Ha? Yow sa way lu xew? Ya Bouba. Wa kay kay kay. Salaamaaleykum. ñëwati nga de. baa sóoraale nga ma sóoraale yow de ku la sóor du sóor ah man de dafa am lu ma gis ci tani ma ñëw di la ko wax ma jàmm du jàmm jàmm la ah, yow nag ma tiital tey nag moom bala ma laa tanil moom di nga teg fii ndax tani ji mën a gis bu baax a baax a baax a baax kañ nga gëj a dégg sa jëkkër. yow bëri na ba wàññeeku hmm. sa jëkkër de mi ngi fii ci Sénégal la tani moo ko mimi mimi e mimi mimi mimi mimi jógal lan la lan la lan la lan lu xew. danga nga xam sama ndey lan moo tax ma xam. dama la sa jëkkër ñëw na rek senegal Sénégal nga xam. oui mimi mimi jógal bu ma rusloo bu ma rusloo eh, wallu dimbali leen ma waa koñ bi mimi eh. eh loolu mënul nekk nag yow eh. tamit mënul nekk. man mënuma la nëbbu su ma gisee ci yow dara il ma ñëw wax la ko. sama jëkkër nan la mën a ñëw te waxuma ko. ni mu ñëwee la. anamu mi ngi fii ci Sénégal dafa feebar. Mm, raw na feebar. waaw na feebar waaw. tani nag mi ngi nii nag sa jëkkër mi ngi nii ci Sénégal. dinaa ko gis. ah di nga ko gis kay. bu yàggee mu ngi ci yoon bi dina la feeñ. sama ndey dinaa ko gis. di ko gis kay mi ngi nii ci yoon wi. di feeñu. maaleykum salaam. Ah, waa kii du Adja Seck. moom la kay. nga def waay. Oh. yow de sa dee laa gis. dee. waaw. dee de dafa am ñu ko moom. ah yow de sa dee laa gis. dama ni dee su ñëwee fii ba ma ragaju ko dina dem ba ma fi man ah, maa la wax daal sa dee laa gis li ma gis daal laa la wax. te dama la wax la benn affaire sama yaay mbootu la ma boote boote wu ma soleil. moo xanaa mbootu rambaaj. yow de ku la raw dee. moo yow xale bi le dom ya xamadi. dama di nga seetal ma ji ma xam sama sabar fu mu tollu moo sabar gi du am. yow yaay yalla ban du am. man dal sabar gi du am du am. dama ne soo dee nga tawi xal. sabar gi du am sabar gi mom du am. mimi na nga def. waay fay. sabar ani Aïda. dafa genn ah mimi yow tay sa yaram dafa dafa neexul ah bang, ma ngi te daal xam naa ne moom journée bi. non ci dugg ci gaal ñakk seen bakkan ci gaal yi naw naa leen naw naa leen yéen sama mbokk yi xam na yéen ay yi ay dund waaye yow. yow mi faat bakkan yàqkatu biir yi yàqkatu biir yi reykatu nit ñi reykatu nit yi defaru leen bakkan tey faat bakkan defaru leen bakkan di faat bakkan waaye yow yow di nga xam ne man ak yow la reykatu nit bi faatkatu bakkan bi reykatu nit reykatu nit man ak yow la gisee ma indi la ba fii tey c'est parce que dama bëggoon ñu waxtaan. waa jàmm. jàmm la du jàmm dama ëmb. ëmb. waaw te fas yéene ko dindi ndax mënuma ko garder. waa xoolal garaawul am naa sama benn copain docteur kooku moom dina ko dindi facilement du am benn problème. sans problème amul benn problème dina ko dindi. xalaas naxuloo ma nga ni. ba nax man yaay sama soppe yaay sama lépp. kooku yow amul nax amu ci. lolou de boo ma ko defaralee dinaa la sante man yaay sama waay ndax man awma ma kenn ku yow ta xamone nan buma ma la ko waxee di ma trouver solution. man lu la métti lu nek man dina ki taxaw. acca na dem amul problème ñu dem. man ak yow la da nga bëgg sama doom ah? ah te xamoo luy ñuul sama xol xamoo luy ñuul sama xol nekk ci man xam nga lu ñu sama xam nga lu ñu sama xol tey laa lay rey tey laa lay rey dama lay rey dama luy faat jógal jógal doxal doxal man jaaxle naa de sama seetkat bi nee na de Modou mi ngi fi Sénégal bi gisaguma ko ba tey kay ah bañ a gëm moom de lu may wax dama koy gis nag dëgg dëgg. Mimi jugal. lan la Aïda. la mu nga ci géej benn waay fa ko fekk. ki noppe. luy loolu paak la man xawma ko. Ah! wallaay xawma ko jugal ñu dal. mel ne dafa dem Sénégal. doxaan jabaram. te ah. jabaram xamul ne moom la. maa ko jox idée bi maa ko ne demal Sénégal nga maskuwu doxaan sa jabar xool est-ce que dina la xàmmee. dafa maskuwu kon dem sa jabaram. waaw. trop doole sol ak lunette. ちゃん。 Sénégal jabaram ànd ak beneen waay docteur bi am lu ko wax mais lu ko docteur bi wax docteur bi daal daf ko ne cancer cancer cancer cancer la yore buy reyaate da ngay yàq biir. ah baal ma xam nga lu ci bakkan. teel sa lamañ teel sa lamañ teel sa lamañ teel sa lamañ danaa la rey. dama lay rey. man maay kan xam nga man <laughs> ah. Ah. nga xam man maay kan. xaar mo ma leen nga xam man may kan de nga bëgg xam man may kan xol ma bu baax xamu man may kan man yaay iya kan may muudu sa jëkkeer man may muudu sa jëkkeer may sa jëkkeer ah muudu nga ma muudu ah. war nga ma war nga ma toogal toogal amuma ko woon eh, danga yàgg dama yàgg nga daal di fas yéene fo foo nga am nga doom ne danga koy rey xam nga li ci rey xam nga li ci faat bakkan saakoo bakkan dafaroo bakkan baal ma ah baal ma nga ne dangay faat bakkan xam nga biir jógal xam nga ko foofu biir. yàqu ko yàqoo ko yàqu ma ko. Ah. déedéet déglu l'intention vaut nag da biir doon ko yàq. yàqu ma ko téeméeri yàttu yoon. déedéet la. déedéet yoon yàttu yoon. ngi nii kii Modou la iya, kii Modou suñu jëkkër Modou yetu yoon boo ne ñooma di ko rey boo ne ñooma di ko rey iya, boo ñooma di ko rey iya, taxaw leen foofu taxaw leen foofu taxaw leen foofu góor gu baax bul def loolu bul def loolu koy nijaay loolu dina ëpp de bu ko def noppil noppil noppil boo ñëw ma ko boo ñëw ma di ko rey. baal ko. ah yatu yoon. yatu yoon. yatu yoon taxawal. Ndiaye bàyyi li ngay def. ma ne taxawal baal ko yow tamit taxawal. dandul gannaaw dandul gannaaw dandul gannaaw. da doon fo. da doon fo. ah jërëjëf. gërëm naa la yow sant naa la. sëyal nga ma sëy ba ca war vidéo lor na ma ci vidéo laa ci vidéo laa noppe tekk ci vidéo léegi gis nga ko léegi gis nga ko njaay baal ko xamul kaañu ñibbi sonn nga kaañu ñibbi kañ bi keur ga bokutuma ci aduna lay wax ni bokutuma ci gi aduna lay wax ni ni jaay sama aduna ci ci ne señal la ne ñee dee ca geej ñe ñan afrique ni jaay lay wax di dem europe dugg ci bato yi rap ci bato yi dee ci bato yi man ak ñoo ñoo bokku dund man ak ñom ñoo dekk man dëkkatuma ak yeen may ma tuti ma denk la ñaar sëyin nga ma sey bu rafet ma ngi lay sante ma ngi lay gërëm bàyyi li ngay wax. gis nga ko caabi la. caabi ji day defar sa àdduna boo demee ci otel bi ma lal xalaas xam na ko na la fa yóbbu boo ko ubbee ubbi chambre deux cent quatre-vingt-dix-neuf walis yaa nga fa walis yëpp xaalis la def ma gënal xaalis dundal waaye man sama àdduna jeex na bul wax loolu sama xaalis ma jeex na bokkatuma ci yow bokkatuma ci yow bokkatuma ci yéen bokkatuma ci yéen bokkatuma ci yéen demal boo demee nga téyel ma sama doom jàppal ma sama doom yaral ma sama doom yaral ma sama doom sama doom tudde ma ko di ma ko xoole sama doom tudde ma ko di ma ko xoole tukki réer la tukki réer la xam nga ko moom tukki réer nga xoole di ko la sëy waaye mbir mi nii la deme nii la deme dañ koy seetal bu njëkkoon Sénégal sant na Njaay chân đi if I.